d'accord ni ma ko waxee woon euh, sànq ci euh, ndorteel yi un jour dans le monde un jour au Sénégal tey nag euh, dañuy def rek taxaw seetlu ci soxna soosu ñu naan Viviane Loor mbampa si mu nekk nag kon ki ñu njëkk dugal ci administrateur civil fii ci Sénégal ñu toftaloon ko ci gouverneur gouverneur bu Ndakaaru ak liggéey bu am solo bi nga xamante ni def na ko ñu dem léegi léegi bu dee yemb na def ci taxaw seetlu dikkaat. juróomi fan ci weeru sulet 2017 ab ndaje bu amoon ñeel kuréel gi ngànk wàllu pétrole beeg gaz bi ci Sénégal ñu gën ko xam euh, ci cos gaz ci la président Macky Sall àddoo woon nag jëmale ci màkkaan wi ñu waroon a tabax mu war a toppatoo wàllu gaz beeg pétrole bi koppar yi ñu ci dugaloon nag toll ci ñaar fukki milliards màkkaan woowu ñu doon tabax ci biir université virtuelle africaine bu Diamniadio liggéey ba nag ñu ne woon ci fukki weer laak ñeent te étudiants yi war a sàkku xam-xam ci mbir moomu tamit ñu doon leen xaar octobre 2017. kër gi di Senelec juróomi fan ci weeru sulet 1983 ci lañu ko samp loole nag gannaaw rek bi ñu fi jëlee société sénégalaise de distribution d'énergie électrique ak électricité bu Sénégal EDS. ñuy fàttaliku daloog Charles de London Bridge ca Londres muy au gratte-ciel bi gën a mag ci tugal. mu nekkoon juróomi fan ci weeru sulet atum 2012. juróomi fan ci weeru sulet 2002 ci la ñuy taxaw tey Viviane Laure Elisabeth Bampassi administrateur civil mooy soxna suñu njëkk a dugal euh, ci commandement euh, territorial ñu toftaloon ko ci gouverneur bi diwaanu euh, Ndakaaru sasoon ko lépp lu soxal wàllu yokkute Cuba ga mu nekk tey jii nag di fa fësal ab liggéey ma nga fay rafetlu nii mu gisee soxna yi tey ci biir préfecture yi ak it nit leen di tabbee ci biir gouvernance yi l'ensemble des femmes euh, préfets l'ensemble des femmes adjointes au gouverneur l'ensemble des femmes euh, sous-préfets yi nga xam ne tey ñoom ñoo jël flambeau bi euh, loolu maa ngi koy rafetlu bu baax parce que après man bi ma quitté territorial jigéen ñi dugg nañu bu baax ci métier bi te xam naa ni ñu ngi ciy béy seen waar ci nuñ ko waree loolu maa maa ngi leen di félicité di ko rafetlu bu baax di leen ñaan ñu gën a góorgóorlu ci seen liggéey parce que li am solo rek mooy ñu tàggat la liñ la war a tàggate que ce soit à l'ENAM que ce soit dans d'autres écoles euh, nationales nga génn fa ñëw def liggéey bi ci nuñ la ko sase donc loolu mooy may fit sunu rakk yi nga xam ne suñu doom yi nga xam ne ñu ñuy gis ci métier bi yaakaar ni peut-être di métti na mais tànk xale yaa ngi góorgóorlu ci liggéey bi rek ñoom daf leen di may fit ñu gën a góorgóorlu ci jàng bi euh, xam ni góor baax na jigéen baax na euh, tant que yaa ngi am compétence intellectuelle yu lay may nga mën àgg def yenn liggéey bi na nga jàpp ni dara jomb la loolu laa bëggoon dénk samay rakk samay doom yi nga xam ne tey ñoo nekk ci ci commandement territorial euh, di wax ni nañu jàpp ci baax ci liggéey bi ci jàng bi continuer nag et aller plus loin xam nga ni administrateur civil moom comme on dit on est un corps interministériel fu nekk lañuy ñuy liggéeyee dégam tey man mii maa ngi ñuy toog euh, ci Cuba di woowee ñi nekk fi ambassadeur nekk ambassadeur au Canada mais di Euh, sama juridiction Cuba daf ci bokk yàlla may ma tey ma yegg si fii nar a ñëw présenter mes de créance donc euh, jigéenu administrateur civil yëpp maa ngi leen di sagal ci bés bi tey ne leen bés bi seen bés la vraiment ñun ñëpp na euh, ñoo ko bokk mais au delà des femmes administrateurs civils c'est toutes les femmes du Sénégal ñoo xam ne ñoom la ñuy delloo njukkal ci bés bi ndax c'était une porte qui s'est ouverte et xam nañu ni jigéen ñi ay jigéenu jàmbaar lañu dinañ ubbi yeneen bunt yu ëpp yi jërëjëf mangook ñu koy sargal bu baax a baax Chérif di fàttali rek ni jamono ji euh, moo toogal Sénégal ci réewum euh, Canada euh, ñuy rafetlu tey ji les présence su soxna yi ci biir préfecture yi ci biir gouvernance yi mu mel ni Sénégal également ci wàllu boobu Chérif def na ci ay jéego yu am solo Euh, jéego am solo moom nag mu ubbi la baal concernant li nga xamante ne quand même mooy gouverneur yi parce que ay góor rek ñoo daa occupé fonction yooyu fii ci Sénégal mais gis na ni quand même euh, mu nekkoon gouverneur bu Fatick moom mi nga xamante ne mooy soxna Viviane Bampassimi njëkk nekk aussi jigéen bu nekk préfet parce que nekkoon na fi mm-hmm. préfet bu Guédiawaye laataa ñu koy def kon gouverneur bu Fatick bi mu fa jógee nag elle a été nommée ministre de la fonction publique mm-hmm. mooy fii doon euh, yu bëri yoo xamante sax looloo taxoon kan ñu daal di ko fa doon indi coow li nag woon nag surtout bi gënoon a tàng sax gënoon a métti ci entre deux mille dix huit deux mille dix sept moom moom moo fi nekkoon à l'époque ministre également de la fonction publique coow li nag bariwoon surtout bi naan affaire régime indemnitaire beeg naka leen def ba euh, gars yam ci li nga xamante ni kon mooy indemnité yi état bi di joxe on avait dit que way def ci xawoon na ëppal. boo waraloon après ñu jëlee ko fii def ko la nga xamante ne mooy gouverneur boobu ba léegi nag gis nan quand même jigéen ñi léegi taxawaay bu am solo boo xam demee préfecture yu bëri moment bi Sénégal on a deux femmes yoo xamante ñu ngi euh, mm-hmm. la boo demee aussi koo xamante y a même pas deux semaines mm-hmm. ñu nommé ko gouverneur euh, c' Mariama Traoré c' est elle remplace Sayer Ndaw mi nga xamante ne moo nekkoon gouverneur bu Kédougou donc maintenant administration territoriale bi jigéen ñaa ngi fi taxaw di ci am taxaw taxawaay yu am solo. Mhm. te moom mi nga xamante ne quand même mooy Viviane Bampassi moo ubbi baal bi. ma ngoog moo ubbi baal bi euh, euh, doyen Malick Thiandoum euh, muy lu am solo Chérif mi ngi koy wax léegi sax ci biir waxam soxna la soo xamante caatum ci atum 2018 bi fii grève yu métti amee itam dañu doon fexe rek nuñ koy sàqale pexe waaye yaakaar naa muy góor di jigéen li am solo mooy ndëgërlaay bi li am solo mooy ngëm-ngëm bi xam bi moo ci am solo. fa góor ñu jàngee la jànge te rawuñu ko donc c'est normal aussi que mu aspirer mm-hmm. euh, jiite fonction yu nga xam ne góor moom moo koy jiite parce que ENA ba mu nekkoon euh, jëlu fa ndaare mm-hmm. euh, donc dafa ñëw dagg ay diplomam dagg ay lijaasam ba nga xam ne dafa am lu ñu tuddee maitrise en droit public option relations internationales moo tax sax basculement bi mu def dans la diplomatie mm-hmm. c'est parfaitement en euh, euh, euh, en synergie ak moom li nga xam ne moom la jàng tey ji mu nekk jigéen bu nga xam ne jigéen ju mën góor la. Mhm. xam-xamam may na ko mu gérer li nga xam ne moom lañ ko dénk. ci wàllu euh, gouvernance parce que moo nekkoon gouverneur Fatick mais aussi ñëw au ministère liggéey fa liggéey ba mu fay liggéey ba mu fa jógee aussi taxul mu chômer mhm. tey mi ngi nii demaat na ah feneen ah. parce que compétence am moom moo ko may tey euh, fu mu dem wane fa euh, xereñteem donc loolu day won rek ni jigéen ñi nañu gëm seen bopp mhm. donc je pense que parité parité mais parité bi li koy gën a dëggal mooy nga am lijaas bi nga xam ne moom la gaa ñi am am compétence bi gaa ñi am ba fu ñu taxaw nga taxaw fa lu ñu def nga def lu ko lu ko gën te gis naa ci jigéen ñu bari ñu nga xam ne wax dëgg yàlla poste yi ñu leen dénk ah liggéey bañ cay def de góor manu ko mm-hmm. njub gañ cay wane. maandu gañ cay wane rigueur gañ cay wane euh, góor ñi duñ ko ci wane. Mhm. kon gàcce ngalaama Bampas. ma ngoog euh, gàcce euh, ngalaama ma ngoog bu ñu amoon yéene yegg waaye xam nga dafa mel ni yëf yaa ngi xaw di dem tuuti waxtu wi dañuy daal di jàll léegi léegi rek ci xibaar yi ci wolof ci gàttal.